alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi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 wattiini wa zeytuuni saar la bu nga xam ne yàlla wàccel nañu ko ngir jàngale kattanu nit dooley nit ndax nit yàlla may na ko su ko neexee mën na defar boppam ba nga xam ne dafay dem elli yiin dëkk ak yonent ak saalixiina yi ak shuhadaaw yi waaye bu ko def bu ko neexee itam mën na wut ci boppam ba nga xam ne jahannama ci lay mujj dund loolu saar war ñu koy jàngal ni ñu koy jàngalee nag nit wax na fi ahsani taqwiim wax na summa radadnaahu asfala saafiliin fi ahsani taqwiim mooy bind na ko bind bu rafet bind boo xam ne bu sàmmoonteeg taara bind boobu ci topp yàlla aljana la ko jëmee su fekkee sàmmoo teg taara bind boobu ko yàlla bind topp ci rek bakkanam lu ko neex topp ci saytaane yi topp ci def lu bon bu boobaa itam fa muy mujjee moom mooy safara rek bon espéré saafiliina mooy lu gën a moy safara la jëm wala mu nekk nit ko xamne mu ci bind bu mat jëm ili yéena mu ñu waxal nak ci saaw yi ba tey di ñu ne do ma dama amna yalla may na ko bind ci kaw suuf bind bo xamne mu ko euh togalé ci ñaari yef mu ko togalé ci jëm yi di dund yàpp yaram ak roxo roxo mooy li nga xam ne ci la doomu aadama di peese boppam ba xam nu mën a toll ak lu mën ak lu mën a def ak lu mën a tekki ci dundam bu ko neeralee itam ci la mën a ñàkkee boppam ba nga xam ne dafay émané boppam ci xottu ne rek lii yaram bi laaj rek loolu la bëgg bu yaram bi laajee bànneex loolu la bëgg bu yaram bi laajee lekk loolu la bëgg bu yaram bi laajee noppal loolu la bëgg ci loolu rek lay daw luy noppal yaram wi ak ay bànneexam rek bu boobaa soo bëggee àtte bu boobaa kooku moom du mën a jox doomu aadama kii moom bu mag bi nga xam ne yàlla may na ko ko waaye bu fekkee nag am nga kàttanu sàmm sa jikko yu set yi nga xam ne moom nga wàccaale yu wees yàlla ndax yàlla wax na ne man yàlla bindu ma illa ala fatrati nit ku nekk yàlla bindu na ko mu fattara fàttal moy mooy gëm yalla ku judd rek dangaa judd waale gëm yalla su ko rek su may ne boobu ba ba ba hadith ba jeex su ko rek su fekkee dama dama amul kàttanu ne mom man na tabax jëmam ci leneen lu dul rek yaramam ak ak sokke yaramam euh mën man nako tabax ci mana man nako tabax ci ro man nako tabax ci jikko yi nga xamne ne lu gis ci bët waaye nag danañ ko dund ndax jikkooy nit am na foo xam ne foofa rek mooy àttekaayu nit kii nit koo xam ne xamee nañ ko ci dëggu nit koo xamee ne xamee nañ ko ci maandu nit koo xam ne xamee nañ ko ci bëgg nit nit ko xamee ne xamee nañ ko ci bëgg yu kawe dëgg-dëgg booy booy sukkandiku moom rek ngay gis ne moo war a nekk ki nga xam ne moom la nit ñi war a wóolu waaye nit koo xam ne faalewu dara lu ko neex mu wax lu ko neex mu def fu ko ko neex mu génn kooka itam benn nit la boo xam ne ngi dund ci biir nit ñi rek amul amul benn lu nit di yaakaare ci moom kii yëg na ci boppam ne am na yàlla daf ko bind toggale ko toggale na ko ci jëmm ak roxo roxo mi ngi def rolam mi ngi def dawroom ci nit ki yaram bi itam mi ngi jël dawroom ci nit ki ñaam ñaar nag nga boole leen ba nekk benn ñoom ñaar nga boole leen ba mën a tabax sa bopp ci diggante boobu moo ëpp njëriñ nga jàng rek jëm ci benn côté boo jàngee jëm ci benn côté ci àddina jeex na ñàkk nga sa bopp soo soo jàngee jëm ci roxo euh, bi itam ñàkk nga àddina rek ndax boobaa àddina yi dootuñu la dootuñu la xoolati mu ñuy jàngal ci téere bi itam ne doomu aadama ñaar ñooñu ñoo ko boole roxo ak jësët roxo bi mu ngi koy jàngal ne watiini dana gën ci tiin mooy mooy euh, euh, loolu ngeen xam di ko lekk rek wa zeytuun dana ma gën zeytuun maa ngi gën ci mooy gën maa ngi gën ci zeytuun mooy loolu ngeen xam ni ñi di ko lekk rek ndax loolu la wala dee am na ci borom xam-xam yi yoo xam ne place la ndax tiin mooy gën bi ñu lekk ak zeytuun bi ñu lekk wala dee ñu ne déedéet du moom waaye fam sax foofu la ñuy ndax ñu ngi sax ci jëbal yi Sina ak jëbalu Zeytun fa nga xam ne fa la yonent Yàlla Isa nekkoon maanaam ci Sham rek la eh, meññet mu mu am la la meññet mu su ko defee nag place yooyu nga xam ne ci lay sax mu ne ci place yooyu lay gëñ wax la ci waxi borom xam-xam yi nit mën na koo am nañu ko nangu am nañu ko nanguwut am na ñoo xam ne sax dañ ko dàq ne loolu du dëgg su fekkoon ne dëgg la bon duñ sax feneen fu dul foofu waaye ñu ngi sax feneen ñu ngi sax Europe Espagne ñu ngi sax fu nekk ci àddina bi bon doonul ne sax waaye ba tax yàlla di wax waaye li muy wax yépp mooy garab gi rek mooy ñaari euh, feu yooyu ci ñoom lay gëñ wa tiini ci tiini lay gëñ wa zeytun ci zeytun lay gëñ ndax tiin boo boo ko xamee ci borom xam-xam yi wax am na njëriñ lool ci jëmmi nit ndax bokk na ci garab yoo xam ne bokk na ci yi nga xam ne dañ ci garabee xol euh, res res buy res buy feebar danañ ko fajee gën bokk na ci yi nga xam ne gën gën dina ko faj ak itam di ñu tuddee dëmbee moom tamit bokk na ci euh, feebar yi nga xam ne gëñ dana ko faj bokk na itam ci feebar yi nga xam ne dana dimbale nit ci faj ah feebar yu bëri yoo xam ne ngi ci biir yaramam it loolu tiim dana ko dimbalee nit mu faj ko zeytuun itam ku ne xam na njëriñam moom tamit am na njëriñ yoo xam ne ci jëmmi nit ci faj ko ci dimbali ko ci faj ay feebaram loolu itam am na ci zeytuun bon nag yàlla ñuy xamal ci biir tiin ak zeytuun ne doomu aadama soxla na ci yaramam paju doomu aadama soxla na ci yaramam ci yaramam lu ko dolli doomu aadama soxla na ci yaramam wér ak maslaay ñaar yooyu yëpp tiin ak zeytun dana ci dimbale doomu aadama pour mu àgg ci moo tax muy gën ci tiin ak zeytun ah bon ñaar yooyu ñaari màdda la matière la ñu ngi koy gis di ko laal tiin ak zeytun ku nekk gis na ko ku nekk laal na ko waxtu wala maa ngi gën ci jabalu siiniin ba nga xam ne ci yàlla ci la yàlla daje woon ak yonent yàlla Moussa jëbal baa ngi nii gis nañ ko waaye nag daje yàlla ak yonent yàlla Moussa Moussa ngi nii gis nañ ko daje yàlla ak Moussa loolu nu mu demee loolu ñu duñ koo xam yàlla rek a ko xam ak yonent yàlla Moussa mi nga xam ne dund na ko bon nag loolu nooy def ba ba àgg mooy dañ koy gëm rek ne loolu am na su ko defee gëm-gëm boobu nga koy gëm moo lay dundalal sa roxo gëm-gëm boobu nga koy gëm moo lay yokk ay maanaa yoo xam ne ci ngay jaaree yëkkatiku ngir nekk nit kooku nga xam ne moom la yàlla bëgg nga nekk ko def xuliqal insaanu fii ahsani taqwiim mu ne yow wa tuuri siiniin ak tuuru siiniin mooy fa yàlla dajaloon ak yonent yàlla Muusa foofu itam nee nañ garab yi dinañ fay sax def wa haazal baladi dana ma gën ci bilab bilab dëkk alami ni ba de borom a de ñu ne mooy màkka waaye laaye ji ni muy doxee daf lay wone ne du màkka waaye ci place yooyu rek la ci diggante ti ci diggante bayt maqdis ci diggante jabalu tuuru ak bayt maqdis ak zeytun place yooyu nga xam ne fa la bayt ma fa la bayt maqdis nekk fa la nekk mu ne place yooyu nga xam ne fa la gën koo xamee mu di ko sax te yooyu la doon gën bu waxee waa hazal baladi hazal baladi itam mooy dëkk boobu rek mooy baytul maqdis waaye dem ba màkk di ko ko tuddee loolu ñu ne wax ju wax ju wax ju ju ëppal la rek waaye jubluwul ci màkk de mu ngi ci jublu waa hazal ci dëkk boobu nga xam ne ci la zeytuun di sax ci la tiin di sax tiin ak zeytuun nag yonent yàlla Moussa Euh, alayhi salaam yàlla nga ko feeñal ci jabaru Sina yonent yàlla Muusa Isa yàlla ko feeñal ci Zeytun yonent yàlla Muhammad yàlla ko feeñal ca Makka rek moo tax am na benn laay ci Injiil di wax naan yàlla ñëw na jógee tuuru wàcc Zeytun dem Hijaaz dem Makka jubluwum ci ne yàlla moo wàcc waaye xalifa yàlla yonent yàlla Musaa ci jamonoom xalifa yàlla yonent yàlla Isaa ci jamonoom xalifa yàlla mutlaqan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu laaya yooyu boo demee ci téere Linjiil yeeg Tawreet yi ci téere Linjiil yi léegi dañ koy nëbb wala ñu soppi ko waxee ko neneen noo xam ne mu te nag li laaya di wàccee de mu ne mu ngi gën ci tiin ak zeytuun mu ngi gën ci tóori seen waaw su bëree ci beneen dëkk waaye borom waaye fii kat yëpp daal màkk rek la ñuy wax ne moom la de te la ñuy diggale borom ak kuréel la de mu ne am na lu mu doon gëñ mu ne waxat xalaat naa ñun de bind nañu la li sànni nit mboolem xeetu nit yàlla ko bind rek ci li mu ko bind mu ne bind na ko fii ak seen taxawii ci gën jaara fi te bind rek loolu mooy mooy moo tax yàlla di gëñ gëñ yooyu. benn yooyu ñëw na tëkkale na ko ak doomu aadama la ci teg xalaat ma ngi insaana fi ahsani taqwiim taqwiim mooy looy tabax tabax jubbanti ko def ko ba mu leer ba mu jub xaw ma turu fekk lu dëng nga jubbanti ko ba mu jub nekk ne kocc mu ne boo demee loolu la yàlla defal doomu aadama su ko defee nag nga xamee ci ne ñaar yooyu jiitu woon wala ñeent yooyu yëpp jiitu woon wa tiini wa zeytuuni wa tuuri siiniin wa haazal yépp ku ci nekk am na lu muy def ci doomu aadama bii dund bi mooy dund doomu mooy tiin ak zeytun mooy lekkam junj junj ci rek maanaam doomu aadama dafay lekk su ko defee nga xam ne doomu aadama ci li yàlla di tabaxee jëmmam ci la bokk ci li muy tabaxee jëmmam ci la bokk dundam lekkam ci lay tabaxee jëmmam ba mu nekk jëmm ju dëgër jëmm ju taxaw bu ko defee wa wa wa wa tuuri siniina waxaasal balad lami nag foofu jaamukaay yàlla la ndax foofu yàlla nga fay dégg yonent yàlla Moussa Makka yàlla nga fay dégg yonent yàlla Muhammad nga fay dégg su ko defee nga dégg ne doomu aadama am na xol am na am na am na ruuxu am na jësët jësët bi dund bi ñuy dund moom moo koy moo koy tabax ruux gi place yi jaamuwaay yàlla yi moo koy tabax de jaamu yàlla moo koy tabax ndax wa waxaasal baladi wa watkoori wa waxaasal baladi al amina lolu ñu ci jublu roxo gi nga xamne mu ngi koy dundal moom tamit ci yamu yalla lele mu ci motax mu ne la khat khalaq dal lisaana fi ahsan taqwim matal nañ ko mat bu mat sek matal nañ luy tabax jëmam matal nañ luy tabax luy tabax itam roxoom su ko defee loolu mooy boole def doomu aadama bi nit ki nga xam ne mën na sëkk mën a nekk jaamu yàlla boo xam ne su ko neexee mën naa xëcc boppam yóbbu ko ba muy dugg aljanna maal maal nabiyina wa siddiqina su ko neexee itam mu sànni boppam gën a suufee suufee yi ndax boo duggee safar ku dugg safara moom jeex na torox nga torox tane yoo xam ne kenn gënu laa faree suuf de mooy ah, ah, ah, moo tax mu ne fi ahsani taqwimin summa radadnaahu topp ñu delloo ko asfala saafiliina mu gën jaar suufe way suufe ñe ndax lan ndax sànni na boppam safara la jëm boo demee borom xam-xam yi njëkk yi borom xam-xam yi dinañ koy fiwee ne asfala saafiliina illa lazina ndara ñaane amanu gëm nañu wa amilu te ñu jëf assaalihaati farata yaag naa file dañ ne fi Safina mooy gën magat màggat na ba nga xam ne fàtte na fàtte fàttali ko tu dara màggat na ba lootoot ba mën a tu dara mu ñu ne loolu mooy fi Safina waaye ay borom xam-xam gis ne loolu fi Safina du loolu ndax su fekkoon ne loolu la bon du wax illa lazina amanu ndax ni jiggam yàlla itam danañ magat ba kootoo bon nag loolu mënta firi Hizbut bon nak lan moy ësfala safirina di nit ki def waxoon nañ nit bu ko nexé man na dundu ba yóbbu boppam aljanna waye nit bu ko nexé man na dundu itam yob boppam safara lolou nu koy defé ndax ma dama ñenti jikko ñetti ñenti jikko mu ko sét jikko yi ak jikko yi ak jikko gari ak jikko euh, yi yooyu yëpp ñu ngi séq doomu aadama bépp dund bu mu xëcc ci jublu sa boppam rek bu boobaa doon na loola su fekkee doomu aadama mu ngi sàmm boppam jaamu yàlla bëgg yàlla jege yàlla def lépp loo xam ne daf koy jegeele yàlla bu boobaa tànn na jikkooy malaaka yi su fekkee tànn na jikkooy malaaka yi bu boobaa mooy gën malaaka ndax malaaka yàlla nga ko toggale rek moom ci benn bànneex rek benn bànneex jaamu yàlla rek la am ci bànneex amul beneen bu ko ca si doomu aadama am na bànneex boobu waaye am na bànneexi àddina soo fexee nag ba not sa sa àddina yépp ba tëral ko mu mel ni ji koy malaaka yi bu boobaa yaay yaay yaay gën malaaka yi ndax fi nga jógee yow ba àgg foofu malaaka yi jógee wuñu fa malaaka yi ñoom fa nga jógee pour àgg foofu foofu nga àgg si foofu la malaaka yi dëkk aslan yow nag da xeex ba ak si ci bon yaa ko gën de wala boog doomu aadama dana mel ni euh, seytaane xëy rek xëy rek nitu xëy rek jaxase nit ñi def lu bon rambaaj kenn du la gis ngay dox ci lu baax waxtu wala nit gisee rek yaa ngi dox luy tas luy tas ak bopp yaa ngi dox luy yàq ak xaritoo lépp lu la nit gis rek ci loolu ngay dox bu boobaa nekk nga nit koo xam ne yaa ees ci nit ñi yaa ees ci seytaane yi su ko defee seytaane bu boobaa seytaane nga ndax loolu mooy jikko seytaane yow yaa ko yaa ko rek di def li nga xam ne moom nga seetaan waroon a def ma ne ko toogal man dinaa la ko defal danaa yàq diggante diw ak diw danaa yàq seen sëy yi danaa yàq danaa yàq danañ ko yàqal lu nekk bu boobaa won na ba mel ni seytaane te moo gën a yées seytaane de ndax seytaane ci la ko yàlla ci mbon la ko yàlla bind moom bon rek la xam su ko defee nag yow yàlla bind na la boole la mbon ak baax nga fexe bona bona bona bon ba àgg fi seytaane àgg bu boobaa yaa gën a bon seytaane de doomu aadama dana mel ni ak eh, njaaxal yi fàdd ak eh, rey rek la am gaynde yi tane yi boo gisee ci àll yi fàddante rek rayante rek la liggéey doomu aadama itam dana am xay ba nga xam ne ci loolu rek lay bind foo ko fekk rek rey fàdd yàq lu bon rek loolu lay def ci diggante nit ñi ak rey rek su boobaa dana mel ni gar te mo gëna bon garbe ndax garde lolu ko yalla bindé yow yalla boole na ko ngi leneen nga fexé balam ko boole mu faddu nga melni ni bu boobaa yaa gën a bon garbi rek su ko defé nak lolu moy asfala safilina bu la nexé nga doon nit doon malaka ba ag ci malaka yi yalla leen gën su la nexé tam nga doon gar bëgg na a suufe gar yi yalla leen gën bu la nexé nga doon saytaan yalla leen bon fekkee da doon amee ci ko seytaane da mel ni seytaane bu boobaa yàgg na bon seytaane ndax euh, lu nekk rek yàlla bindee na ko noonu bind na malaaka yi ñuy lu baax rek lañ xam bind na seytaane yi lu bon rek lañ xam bind na doomu aadama def ko diggante mbaax ak ak bon bindal na ko ko neexee mu xëcc boppam yóbbu ba mel ni malaaka yi waaye su ko neexee itam mu xëcc boppam yóbbu ba mel ni gar yi de su ko defee nag bu demee ba mel ni gar yi bu boobaa moo gën a bon gar yi moo gën a baax malaaka yi de moo gën a bon seytaane yi waaye moo gën a baax malaaka yi loolu yëpp bu ko neexee yàlla dimbale ko mën na koo defal boppam ndax fekkee ne rek pour màggat ci yaram moo tax laay ji wax laay ji màggat ci yaram tax koo wax de ndax ñi màggat ci yaram yëpp ñoo niroo dem ba kootoon màggat na màggat na rek taar bi dem na rafetaay bi dem na li nga yaakaaroon yépp dem na ndax su fekkee yàlla bind na doomu jigéen ak góor bind na doomu def leen jigéen ak góor matal na góor ci ay jikko yoo xam ne nekkul ci jigéen matal na ko itam ak sikkiñam ngir yokk ko taaram ak ngóoraam jigéen yàlla bind na ko moom tamit matal ak jigéenam may ko karal bopp bu ko neexee mu létt may ko lu bari loo xam ne boo ko gisee sopp ko moom tamit bu la gisee sopp la su ko defee yàlla ngi préparé yokk ngirti li ndax bu ñu xasee bëggante ñoom ñaar rek màgg ci sëy yàlla ngi yokk ngirti li doomu aadama ngi yokk bu ko defee nag ku ci nekk nag bind na la dat boo xam ne boo ci àggee loolu nga mënoon dafay jeex jigéen bu dundee ba am ñeent fukki at ak juróom jeex na ngir tam taxaw na dootu jurati góor tam bu dundee ba nga xam ne ak ba ba mage moom itam bu boobaa feebar yi koy dal ak nangam ak nangam ak yooyu di ko dal yépp bu ko defee moom tamit ngir itam jeex na dootu jurati bu ko defee yàlla moom jeexal na ngir ci diggante ñaar yooyu su ko defee ngir dootu amati def ci ñoom ñaar waaye nag tere terewu yeneen yi yàlla am leen di mëdd jox mëdd yàlla am leen di tëbb tëbb yoo xam ne ñu ngi am kattan ñu ngi am doole di mën a yokk seen bopp di mën a yokk itam doomu aadama yi di mën a dool di tabax waa su ko yàlla jeexalee jeexal na ko màggat ngeen jeex na amatu leen doom ñeneen a ngi doon ay xale di am doom bi ñëw de fekk mu ngi soob yàlla mëdëdëm boobu ci àddina bi moo fi nekk doomu aadama yi du yokk mëdëdëm bi mooy yëw ci li ñuy dund yépp yàlla nga koy yàlla nga koy dolli rek ndax mëdëdu yàlla ci àddina bi du dagg mukk fekk àddina bi tukkiwul de ndax li ngeen koy xamee mooy Adama ak Xawa ba nekkee ba nit tuutee lool dañu daan dundee ci suuf rek lañ ko daan di leen di dund mbay ba léegi ñu mat juróom-ñaari million ba tey li ñuy suuf li ñuy dund yépp ci suuf si rek lañ koy jëlee di ko dund di ko dundee bon mëdët boobu nga xam ne yàlla moo koy joxe mëdët bi moo daggul yàlla nga koy yàlla nga koy joxe waxtu wu nekk te waxtu wu nekk daf koy joxe ni ko mbindeefam yi soxlaare ni ko mbindeefam yi yaakaare te soxla ko noonu la leen koy joxe waaye boo demee ci léegi jamono ñu ne doomu aadama yi bëri nañ ba nga xam ne fekk l'an deux mille trente danañ wala l'an deux mille cinquante danañ mag euh, dix milliards bu boobaa suuf si dootu leen attan nit ñi dootuñu am lu ñu lekk bon nag léegi loolu li koy réglé mooy def loo xam ne rek dana rey genn wàllu doomu aadama yi ñu koy defee nag ndax dañuy taal ay guerre <coughs> di rayante wala dañuy def ay pexe yoo xam ne rek léegi dañu ne abola say nefalee nangam say nefalee nangam say nefalee dugal ay poson yoo xam ne dafay yóbbu rek ci kii sermoniste yi ñuy lekk di feebar feebar yu garaaw di dee rek ndax loolu la loolu itam mën naa doon loolu ndax seen i pexe ëpp na loolu waaye gis nañ ne ñoom óolootuñ daal fekk l'an 2050 mi ngi mat 10 milliards suuf si dootu leen mën a dundal su ko defee nag ba ñoo àgg foofu kon nañ leen wàññi nañ wàññi nit ñi rek bañ àgg ci 5 milliards doy na waaye 10 milliards 7 milliards loolu bëri na ba pare kon nag ay pexe yoo xam ne daf leen di wàññi rek ci la ñuy nekk ci la ñuy nekk mën nañ koy feeñalee lu nekk nag léeg-léeg nga dégg benn coow feebar bi Ebola fay na fële nangam fay na fële nangam fay na fële ndax loolu ci pexe wàññi nit ñi la bokk wala déet mën na koo doon ndax ñoom tayaluñ tayaluñ ci te dañoo gëm te dañoo bëgg xam-xam lu résultat résultat wu xam-xam dañ ko bëgg lu xam-xam joxe rek danañ ko seet ba xam ne waaw baax na bii dinañ ko soxla ëllëg dencal fii abola bi xam nañ ñu koy yoxe danañ ko soxla ëllëg dencal fii lii bi eh, sida bi xam nañ ñu koy yoxe baax na léegi xam nañ ñu koy defee dencal fële yépp expérience boo xam ne def nañ ko expérience bu mag si ci ndax loolu la mën naa nekk mën naa nekk loolu te itam mën naa nekk loolu très fort ndax euh, euh, àddina bi addina bi addina bi rek la borom xam-xam bu beew ak borom xam-xam bu beew a di borom xam-xam yu bew yi yëpp nekk boo demee ci àddina si ñu ngi ko fees dell am ay euh, centre yu secret yoo xam ne ñu ci biir suuf si lu nekk la gëstu lu nekk la ñuy seet lu nekk la ñuy bëgg a xam ba ci centre yooyu nga xam ne dañ leen gas suuf si <coughs> bien nga Suisse bien nga Espagne ak ak ak yeneen yeneen centre yoo xam ne ñu ngi ci dañuy gëstu ci suuf ñu ne dañoo bëgg a dem ba gis yàlla fu yàlla nekk moom lañuy seet euh, lu nekk nag dañuy def ci biir centre yooyu ci gëstu am na ci benn docteur ci ñoom gëstu gëstu gëstu boo ubbi benn bunt rek nga mer kenn gisatu ko ndax du ko yóbbu waaye seen xam-xam yi moo leen yóbbu ndax euh, nee nañ ba ñoo toog danañ luppati fu yàlla nekk danañ danañ génne yàlla ñu ngi ci gëstu yooyu gëstu yooyu nag lépp loo xam ne dana leen jox xam-xam rusuñ ko bañuñ ko danañ ko def lu leen di àggale ci xam-xam rek ñeme nañ koo def amuñ ci kersa amuñ ci rus amuñ ci dara ndax inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha loolu itam ba tey moom la borom xam-xam yi di sukkandiku fekk yaa ngi jëm ci xam-xam di uti résultat rek amul looy ragal amul looy rus lii li ngay ragal li ngay rus yëpp mooy ñàkk euh, résultat boo xamee boo amee résultat bi ba pare nag boobu ngay door rus boobu ngay door a yëg de lu demee ni ki prix Nobel Alfred Nobel moo ko joxe lu tax mu ñu ko joxe ba mu demee ba gis de résultat xam-xamam boobu la rus gis ne def na xëy ci àddina bi ay waxam ne mënatu koo delloo gannaaw ndax moo njëkk a defar loo xam ne dafay tàkk tël bomb toj montagne toj nangam ak nangam ñu ne ko def nga ay de gis nga li nga def nii def nga ay de ba mu ko loo xam ne ne def na ay ba mu ko defee nag ci lay tuubee jël alalam ne séddale na ko at mu jot ku indi xam-xam boo xam ne dana am njëriñ pour doomu aadama jox leen ko ci sa alal nangam rawatina nag ci xam-xamu science littérature paix euh, yep, boo demee ku ci nekk mu ko defal prix boo ku ci def lu lu at àddina bi rek jox leen ko ci sama alal nangam ndax yàlla baal ko bàkkaatam boobu nga xam ne agsi ci te bam koy ut boobu yëgut ne bàkkaat am na bi mu ba ci nak da loo xam ne amna muy tuub de mooy Nobel bi ngeen dégg de la paix lool moy ci sanam de naka nonu itam ah borom xam-xam bi nga xam Euh, euh, dégg ngeen ku ñuy wax Einstein moo teg xalaat bi nga xam ne ci la bombe nucléaire mën a génnee moom moo tëral xalaat bi waaye nag ki ko réaliser ba mu am ñu ngi koy wax euh, Weingarten kooku bi mu ko defee ba pare ba nga xam ne bombe bi pare na am benn xaritam bu ñëw di ko félicité ànd ak xaritam arab bi mu ñëwee ñu di ko félicité mu jóg defaral leen ataaya yu naan ba pare arab bi ne ko ah, loo yëg bi nga demee ba yëg ne réussir nga ba bombe nucléaire am na mu ne ko damaa wëccu dama wëccu de ndax mu ngi door a rus ndax mu ngi door a xam lu garaaw li mu def de waaye nag fekk ñu koy wuti nag moom bu boobaa amut diine amut conscience amut dara na àgg ci résultat rek loolu mooy xam ndax loolu mooy xam-xam ci ñoom su ko defee nag ci noonu nit mën naa kawe lool ut lu baax jëmee ci doomu aadama nit mën naa suufe lool ut lu baax ut lu bon jëmee ci doomu aadama de ñuy ut nucléaire yeeg euh, ba ba ak euh, ngànnaay yu bon yëpp boo demee dañ koo def ñu ne dañ koo def pour défendre seen bopp waaye pour défendre doomu aadama en général waaye boo demee résultat yi mu joxe du loolu de résultat yi mu joxe mooy ne ñoom seen bopp xam nañ ni amee ci xay duñ ko taal seen diggante mukk ndax xam nañ ko Russie du xeex ak Amérique Amérique du xeex ak ñeneen parce que ndax xam nañ li amee ci àddina lu dul rek na mën na ma yàlla ñëw na mu jeexal àddina bu boobaa mën nañoo xeex ndax buñ xeexee rek àddina jeex yee du xeex ak Amérique Amérique du xeex ak moom ndax xam nañ li ñu amee waaye nag nañ ko arme yi nañ ko yox euh, ñële am pétrole te xamuñ luñ ko doyee nañ leen ko jox rek ñuy reyante ñoom kese ñuy jël seen loolu mooy loolu loolu yëpp mi ngi xew ci biir àddina bi te loolu yëpp boo demee mi ngi xalaq na insaana fi ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliina nit ñu kawe ñu baax ñi te doo leen fekk lu dul ci diine nag nga leen di fekk diine lislaam sawaawun diine masiixiya diine yahudiya nit ku baax rek ku yaru dëgg-dëgg yaru yaru ku ko def dëgg-dëgg diine rek moo la mën a yar waaye leneen lu du diine ta yar doomu aadama doomu aadama boo ko coupé doole bu yàggee ray ma sax mu jeex waaye doole la nga am ray ma ray ma sax mu jeex su ko defee mu jeex ragalatu ko wu ko waaye nag boo ko waxee moom ci diine da ngay laal loo xam ne moom ci boppam bëgg na ko yëg na ko ci xolam xam na ko su ko defee daf lay mën a bon diine moo mën a yar doomu aadama ba àggale ko fu mën a àgg ci kawe waaye leneen lu dul loolu boo ko indee da ngay nit rek diine moo mën a doyluloo doomu aadama leneen lu dul diine munu ko bu ko defee nag bon diine mooy ngànnaay bi nga xam ne moo gën a kawe ngir doomu adama def ko dundee ko ndax mu mën a nekk nawle addina bi ndax addina bi wërsëgu la yàlla mayal wërsëg woowu nag su fekkee gis nga ne moom a gën da ngay torox rek ci kanamam toujours waaye su fekkee gis naa ne ma nawle wërsëg wii la moo tax yonent def daan ñaan yàlla yow yàlla yàlla ma def may sama nawle téewal yàlla ma def may suma nawle téewal ndax téewal bu sa nawle rek nekk nekk sa sang waaye boo ko defee nawle rek bu ko defee xam nga nooy jëflanteeg sa naw bu boobaa man moom nga ko mën nga koo jëriñoo mën nga cee jëriñ ñeneen waaye na su fekkee da koo def nag ne mooy sama sang c'est fini doomu aadama amatu fa xottu nit rek moo fa am boo xam ne alal rek lay tiitaroo alal rek lay yëkkatikoo te alal yëkkatiwut kenn yëkkatiwut kenn ah, diine ak xam-xam bu ñor mooy yëkkati nit mooy dolli nit daraja mooy dolli nit maqaama ca yàlla bu ñuy wax maqaama maqaama ci yàlla mooy tax waaye ma xam àddina lu mu kawe kawe seeni borom dañ ko fi fase rek dem bàyyi ko fa nekk ci leneen su ko defee nag loolu yëpp da nga gis ne yàlla am koy faj firi fànce ci diggante laqad xalaqnal insaana fii axsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin ki nga xam ne moom nekk na ki nga xam ne yàlla bind na ko mu nekk fi axsani taqwiim axsani taqwiim du jëmm ji rek waaye ahsan taqwim mooy bind na la sa jëmm nga gën a rafet lépp loo xam ne yàlla bind na ko dama dama mi mi ngi taxaw di dox ak tànkam ay loxoom yoore buy lekk loxoom lay lekkee boppam nekk ci kawam ah, buy loxo buy lekk loxo lay nekk lekkee li ci des yëpp ñeenti tànk lañuy ñuy doxee lu lu néew ñu ci dul doxee ñeenti tànk sax dañoo sëgg bu ñuy lekk seen gémmiñ lañuy ñuy lekkee bon doomu aadama rek moom la yàlla yëkkati teraanga boobu nga xam ne moom rek moo ko am moo rafet karawam rafet bëtam rafet bu nekkee xale nag kéemtaan la ci taa su demee ba màggat itam màggat bu rafet am na waaye màggat mu ñëw moo gën a bëri na <laughs> ah, ah, ah. su ko defee loolu yëpp yàlla yàlla moo ko may xéewal doomu aadama ne nag demal nga gëstu seet fa hadaynaahu najdayn demal nag mu ngoo loolu yëpp yaa demal seet looy def ci sa bopp ndax dañ ko yóbbu safara bu boobaa dinaa la dimbale nga yóbbu ko safara ndax dañ ko yóbbu aljanna bu boobaa dinaa la dimbale nga yóbbu ko aljanna de wala xale saa ni saa sani taq yu min su ma la dinaa soo saa si bien noonu la yàlla bindee doomu aadama de moo ko moo ko mu ne yàlla wax mu see ko ne fi ahsani taqwiim ثم ثم رددناه ثلاث ساخرين bon illa alladina amanu wa amilu salihati amul ci maana waaye li tax nag illa alladina amanu wa amilu salihati am ci maana mooy ne doomu aadama jooju jëmm taxut yàlla di wax waaye mooy doomu aadama jikko doomu aadama jikko bi nga xam ne yàlla wax na ci moom léegi ci sóoratu lam yakun ni ah Ah, yàlla wax na ci suuratu lam yakun ci jeex ba ne dana ko yëkkati ba mu gën a kawee bu boobaa bu bu bu kawee bu kawee moo gën a kawe moo gën a hmm? ba yàlla ngay wax ulaayika moom xayru albariyati gannaaw yaa gën mbooleem li nga xam dem nga ba nga xam ne lépp lu yàlla bind ci mbindeef yi dem nga bëgg gën leen bu boobaa malaaka yi dugg nañ ci ndax malaaka yi yàlla def leen bind léegi dem nga ba bokk ci ulaayika hum xayru albariyati ba léegi yaa gën malaaka yi ñi mel ni yow rek ñoom nga amat daraja waaye malaaka yi gën nga leen wala ulaayika hum sharrul bariyati gën ngaa suufee de bu boobaa foofu la atte ba di nekk ki def lu baax ba yóbbu boppam aljanna kooku yóbbu bokk na ci ulaayika hum xayrul bariyati ñii dem ba nga xam ne dellu nañ gannaaw suufee ñoom itam ulaay koom a bariyati de bon loolu yëpp yàlla ñu koy jàngal ci laay yi wala xoolal saa na fi astu ne taqwi min su ma doon daan sore saa fi ñu mais illa lazina ndara ñee amanu kon nu ñu waa nu te def saalihaati farata yaag naa fi de falahum war na ci ñoom falahum ajin nekk la ñaar leen ajuroon yoo xayma moom ñu dagg de ñi nga xam ne nag ñu ngi jëf. àddina ñi ngi jëfal jëf yu baax ñooñu ñoom yàlla dina leen may xéewal boo xam ne du xéewal bu dagg de du xéewal boo xam ne sax dappet dootu dagg loolu itam ba tey lay jéggal ne laay yi ci euh, asfala saafiliin na dund bu màggat la ndax amul waam fa lahum ajurun ghayru mamnuun te ajur boobu la ci àggale nit mooy jëf lu baax di ko yàlla waxee ajuru boo xam du dagg mooy li nga xam ne nga ko ci àddina ci mbaax yàlla gala ci nga topp ko bon nag su fekkee ne rek ah, ah, ah, asfala saafilina mooy dund nga ba màggat ñaaw rek mu ne kenn ci rek ci bokk du ne da nga yex na bini du loolu de waaye am leneen la de mooy ni yàlla bind doomu aadama rek ñii bon nañ lool ñii baax nañ lool ñu wala ñaan la leen ajurul yoon rek mu mu du mu dagg am nañ yoon boo xam ne yàlla dagg ko def xamaa yu kasi bu ka am na lu dana weddi loola yow xéefar bii nag yow xéefar bu rëy bii nga xam ne yàlla yàlla yàlla wucc na la lan moo la weddiloo baadu gannaaw liñ la tudd yépp ci doomu aadama bi diini ci diine yonent yàlla Muhammad lan moo la ngeen yoonal diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow doomu aadama man yàlla may na la teral naa la fu taranga di ak yépp ngir nga nekk borom taranga ci àddina nekk borom taranga ci àllaaxira waaye am na ñoo xam ne yàlla may na leen nangu nañ nangu nañ loolu leen yàlla may yàlla nangu nañ bëgg na ñoo jan janna yoon waa ngi nii jaar leen demal na yàlla ñun yàlla ñun nga wax xamuñ ko dégguñ ko ñun àddina gis may ñu ci àddina ji loo xam ne moom rek lañ bëgg moom lañuy sàkku bëgguñu àjjana bëgguñ dara su ko defee nag gannaaw àddina moom ngay sàkku lépp lu àddina laaj na laaj def ko ngir nga agsi ci man di nga ko def sàkk ko ci àddina yi li gën a bëri ñooy reykat nit ñi ñooy rey nit ñi ñooy toog bay guddi ñuy sàcce alal nit ñi ñooy toog ba guddi ñuy dogaan nit ñi ñooy ñëpp boo demee ñooy ñi nga xam ne ah dañoo bokk ci espele saafiliina ci ñooñu lañ bokk moo tax mënuñoo def loo xam ne lu kawe la lu mën a dëppoog ji koy doomu de def te dëppagu di jóg sa borom a ngi tëdd liggéey na ba sonn daaj bi këram lim liggéey yépp nga sàcc ko yóbbu ko loo koy defee da koy lekk da nga koy jox sa njaboot ñu lekk bu ko defee nga kiifal njaboot ci jàmbur kiifal jàmbur foog nga ne loolu dana baax ci yow wala dina la ji rey nit nangu alalam loo koy defee pour dama koy dundé momi itam dafa bëggoon a dund moo tax mu liggéey ko ndax yaa ko fi gëna ay nga ray ko yóbbu alalam bu ko dundé ndax yaakaar nga ne loolu dana bax ci yow lolu mu ngi jëm ak ci yow walaay asfala saqilina mu ngi jëm ak yow asfala saqilina rek ba yóbbu la safara rek nga bok ci nga xam ne ñoo gëna ñoo gëna a suufi ci àddina de ndax yàlla ngi wax ci nettali ci safara wa qala alladina kafaru rabbana arina ladayn adallana minal jinni wal insi najalhuma taxta aqdamina li yakuna ah minal asfalina mu ngoo su ko defee ñu ne xaabit ñu ne julli ñëpp bu nekk xéefare eh, bu ñu duggee sabara sabara su métti lool ñu ne yow yàlla ñi sababal dugg safara won ndax ñu mën leen teg ci suñ suufi tànk yi rek te mooy iblis ak xaabit Eh, iblis moo njëkk a mooy yàlla ci rëy gis boppam xaabil moo njëkk a mooy yàlla ci tuur deret ci rey nit su ko defee mooy yàlla yooyu rek moo des ci àddina bi ba léegi yàllaay eh, rey nit tuur deretam ak mooy yàllaay rëy maa ko gën maa war a am lii moom war a maa ko gën a baax maa ko gën juddu maa ko gën a kawe mooy yàlla yooyu moo fi nekk ba léegi rek ñu ko jàngal nit ñi nag nit ñi wër ne yàlla woon ñu leen ndax ñu dëgg leen ñu dëgg seen kaw bopp yi de boo demee ñi dëgg ñu dugg safara ñëpp iblis ak xaabil ñoo nekk ci seen ron tànk yi ñu dëgg leen de bon loolu mooy asfala saati li nga mooy nit ñëpp bëgg nañ asfala saati li na mooy nit ku sànni boppam rek bëgg mu ci sama bopp dara lu la lu dul dund ci àddina rek mu neex kawe lu ma ci àggale rek loolu d'accord na ci rek waaye nag am na ñoo xam ne ñoom fa leen yàlla bind rek ndax moom la yàlla ñu ko wax ne xuliqal insaanu fi ahsani taqwiim yàlla bind ko ci bind bu rafet may ko xel may ko roxo may ko damir conscience wuñ daan may ko yëg may ko mën a xam may ko mën a dégg loolu yëpp doomu aadama may na ko yàlla boole na ko ci ko tabaxee ndax mu nekk fii axsani taqwiim axsani taqwiim yëpp ñaar yëpp la boole mu ngi lay dundal ci sa jëmm mu ngi lay dundal ci sa maanaa dundal ci sa jëmm wax na wa tiini wa zeytuuni mooy lépp loo xam ne dafay doon dundal yaramu doomu aadama rek may ko jëmm may ko daraja dugg na ci waxtu li si yéen a waxaa seen bële bi bu yonent yàlla Moussa ak yonent yàlla Muhammad seen diine ñooñu nga xam ne ñooy dundal doomu may itam ci maanaa de moo koy jox jëmmam moo koy feeñal ca na war a feeñee waaye nag téefar moom téefar la rek xamut lu dul àddina àddina rek moo ko neex àddina lay xool àddina lay sàkku àddina lay xool àddina lay déglu fu mu itam dox jëm ci àddina rek lay jublu su ko defee nag yàlla wàcc na ay wërsëg ay wërsëgam ci àddina bi tëral ay luwaa xam ne ci la doomu aadama di àggee ngir jëriñoo wërsëg loolu yàlla tëralal nañu suuf si ñoo ko moom asamaan yéen laa ko tàggatal weer weeg jant bi yéen laa ko tàggatal lépp géej gi ak li nekk ci biir yéen laa ko tàggatal lan moo ñuy àggale ci loolu mooy yoonu xam-xam yoonu xam-xam ci ñuy jaar ba mën a àgg ci loolu su ko defee yoonu xam-xam mën naa may nit mën naa dem ba ca asamaan comme ni ñu ko waxee dem ba ca weeru yoonu xam-xam moo ca àggale nit yoonu xam-xam mën naa àggale nit ci biir ci biir géej foo xam ne dana fa gis soo xam ne daf ko daan dégg rek ne mën taam ndax xamul woon wala baax bi idaa rek ndax néeg yéeg ci biir boo demee dañ ca safara suy tàkk dem nañ ba àgg ci loolu dem nañ ba gën sori loolu dem nañ ba mun a dara ci géej gi rëccu leen dara ci jaww ji rëccu leen loolu yëpp boo demee yàlla may na ko doomu aadama waaye lu nekk nag daf ko tëralal luwaa yoo xam ne moo la say àggali xam-xam mooy luwaa bi gën a màgg boo xam ne mooy génne doomu adama ci euh, suufeem ñàkkam fayda yóbbu ko ci loo xam ne moo koy kaweel ci àddina comme waa yi def ak seet nañ xam-xam liggéey nañ ko ba xam-xam yóbbu na leen fu nekk ba léegi ñu ngi xalaat bi dañoo bëgg a génne yàlla dañoo bëgg a indi yàlla loolu yëpp lu waaye xam-xam moo leen ko tëralal ndax danañ ci àgg ndax duñ ci àgg loolu moom xam-xam moo koy firi ëllëg buñ ci àgg buñ ci àgg ñu xam ne xam-xam nangu na ko suñu ci àggut itam nga xam ne xam-xam nangu ko ñu ngi xoote yu bëree bëri def nañ ko naan def nañ ko def nañ ko defuñu ko euh, ñun mënuñ ko vérifier parce que ñun amuñ ay ñu ko vérifier waaye am nañu d'accord ne def nañ am nañu d'accord ne def su ba tey itam loolu mooy xam-xam xam-xam nanguwut a rek nii la rek nga ne nii la xam-xam nanguwut loolu xam-xam dafa nangu waaw waaye nag ah waaw waaye nag su ko defee loolu ci ngay mun a àggee ci gëstu boo xam ne dina la àggali si lu wér te loolu ci la doomu aadama yi nekk am na ñoo xam ne yàlla bind na leen xéefar rek lañ bëgguñ dara lu dul àddina ak lu aju ci àddina sàkkuñ leneen lépp lu leen ci mën a àggali danañ ci àgg waaye am na ñoo xam ne itam yàlla bind na leen lépp loo xam ne ngëneel la ak mbaax la bañuñ ci dara lu suñ ci dara danañ ko danañ ci dugg ñoom tamit ngir mbaax de ngir àgg ci baax ragal ñoo bañu ñoo toroxlu yàlla ci seen kanami doom ba ñu ñoo toroxlu yàlla ci seen kanami jabar ba ñu ñoo toroxlu yàlla ci kanam seen noon bari ñoo torop yàlla ci seen kanam soppee yépp nangu nañ ko nangu nañoo julli nangu nañoo sujjóot nangu nañoo nangul yàlla lépp loo xam ne dana yokk ci jikkoy doomu aadama yëkkatil ko loolu yépp nangu nañ ko def te suñ ci dara bañuñ ci dara bu boobaa nag yaay ki nga xam ne yow la yàlla bind ne la ci ahsani taqwiim yow la yàlla bind de su ko defee ci topp nag mooy lan laay jooju laay jooju mu ngi jàng léegi ah waaw ah. alaysa laahu ndax déet yàlla daa xamem àcc gën jaa atte attekat yi ndax yàlla du moo gën a mat attekat yëpp lu nit lu nit maandu xatte mën a atte yàlla la dàq atte de ndax moo tëral luwaay yi moo la gën a xam luwaay yi moo la gën a xam ñi ñu war a àtte ci ay duwaa ndax moo leen bind ñoom ñëpp moo leen gën a xam moo leen gën a xam bind euh, doomu li jaadu ci moom ak lu jaadu ci moom bon bu ngeen di àttee yéen ñëpp bu ngeen nekk yàlla moo leen dàq àtte de parce que dafay àtte li muy àttee xam na ko doonul ne matière xam-xam bi rek la xam xam-xamu àtte bi rek la xam waaye xam na xam-xamu àtte bi xam na itam kii muy àtte jikkoom yi ak lu mu def ak lu mu xam na ko xam na diiram xam na bitéem bon kooku atteem moo gën a mag atte koo xam ne benn côté rek ngay xam beneen côté bi xamoo ko bon yàlla mooy attekat bi nga xam ne moo gën a mat mboolem attekat yi kenn jéemu te tolloo moom sax ci atte dama dama yàlla may na ko ne na ko su fekkee yan may jaamu ci waxtu wi nga xam ne yaa ci sa jamono yu ndaw am kàttan am doole di ma jaamu di def li ma lay sant boo demee ba màggat mën a too ko loolu nga daan def ci lu baax yépp di nga nekk ndaw dama la koy fulal di la ko fay ci sa waxtu mag de di la defoo ko sax defoo genn wàll gi sax di leen mën a too ko mën a too ko dafa too ko yàlla nee na ci sa waxtu ndaw lañu daan def di ko denc danga daan def ngir man léegi dama la koy fay rek mooy ne toppatuma la dara malaaka yi kii bu leen ko toppati dara lépp lu mu daan def bu mu nekkee ndaw fulan leen ko ko di ko bindal ci téere jëwo di ci téere jëfam bon xale mu ngoo profiteur bala nga àgg foo xam ne boo demee bu buñ la bëggee defal dara duñ gis suñ ko tabax bon nag jaamu yàlla léegi sa xale boo demee ba tële ñëw bu boobaa loolu nga doon def moom la la yàlla di loo ko jox waaye su fekkee nag xale bu dul jaamu yàlla la bu demee ba àgg foofu du am dara du ko defal loolu bon jaamu yàlla war na te mënta ñàkk ci àddina bi ku nekk nag ak ni ngay jaamoo yàlla yàlla bi mu waxee ne jaamu leen ñëpp nga koy jaamu ak ku nekk nag ak ni koy jaamoo ñii ñu ngi koy jaamoo nangu nañ ne yonent yàlla mu am ci li yonent yi indi nangu nañ ba agsi axirul anbiyaa yi moo yonent li indi nangu nañ ko ci dañ lay jaamoo te nee na ku jaamu yàlla ci lu dul loolu yonente indi yàlla du ko nangu ah falan ba man ñettagaxaal sànni bii nan falan yuqbala minhu wa fil axirati min al xaasirina bon lislaam rek mooy jaamuwaay boo xam ne jaamuwaay bu wér la yàlla nangu na ko nangul na ki nga xam ne topp na ko mooy am yoon bi nga xam ne moom la yàlla digee ëllëg ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñu taxe ñi rek ñoom lay fayee buñ liggéeyee ci seen waxtu ndaw dem ba màggat mu ne tuñ lañ daan liggéey dara du manque ci seen liggéey daf leen koy fay di leen ko fulal ba ba mu lay tas ak yow àllaaxira sa ya sa yaakaar gën a sa xam-xam gën a yaatu sa yaakaar bi gën a dëggu de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim suratul alaq saar waala makkiyatun ko jëf màkk la ishruna min tilaayatin ci kaw tee allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam